très important pour parents de parents yi juróomi di xanaa jànn euh, bi ci des mooy Ellen Deutsch dafa wax ne pour ñu mën a attaquer problème xale yi il faut ñu xeex d'abord le déclin général de la religion préoccupation suscitée dans l'environnement social par les problèmes financiers maanaam léegi xaalis rek xaalis mooy moom la ñëpp bëgg léegi moo waral li am yépp la dévalorisation de ce de l'adolescent a cru pouvoir s'identifier avec profit, pôle identificatoire. L'enfant a besoin de pôle identificatoire. Soit c'est son père, ou bien c'est quelqu'un dans la rue. xale dafa soxla ku muy roy su bàyyee melu lu mu roy mu dem seeti footballkat ba wala mbër ma wala waaw allah kulli ifu moom moo tax fexeel nag ba sa doom sopp la ba nga nekk pôle identificatoire loolu mooy défi parent bu nekk l'exaltation de la réussite et la richesse maanaam xale bi il faut nga xam li mën li mënul nga bañ ko bund waaye il faut nga réussir kut ko kut loolu dafay xew dewaar donc euh, le père doit être bon mari avant d'être un bon père de famille la culture général comme ni ko Serigne sa si waxe woon nee na la culture général et composée de la science mystique et de la science moderne moom ngay am yow bàyyi pour mën a inculquer sa doom ay valeurs des règles morales mu am jikko am lu muy bañ am lu muy ragal mën a jëriñu réew mi jëriñu réew mi jëriñu pencam mais bu fekkee ne yow bàyyi jàngoo dara kooku yaakaar naa ñëw naa ci bàyyi bu jàngul dara xamul dara parent bu jàngul dara xamul dara munta yar doom moo tax sama gars yi ku ci takk jabar demal nga wuti ku jàng jigéen ñi aussi ku ci takk jëkkër wut jëkkër demal nga wuti ku jàng c'est extrêmement important boo bëggee tabax foyer bu dëgër waaw loolu daal man laay conseillé sama bopp di ko conseillé ñeneen waaw moom mën naa di wutam ñetteel moom soob yàlla moom laay dem may na ma cinq minutes nee na waaw bi ci des mooy <coughs> defe naa maa ngi ci conclusion bi euh, conscientiser xale yi conscientiser xale yi xale yi ci li ñu seen Cheikh jàngal maanaam nit nee na l'homme c'est le corps avec son besoin d'aliment ses besoins d'aliments nutritifs c'est l'esprit avec sa soif de découverte c'est l'âme avec son inclination sacrée ñett yii nit ki il foo que mu développe bu nekk développé moromam te bañ a développé te bañ a gêné morom ma mooy tax moom équilibre bu mu mën a jëriñam péncam waaye boo favoriser yaram rek ak bëgg-bëgg àdduna rek bële ñaar yi la nga bàyyi leen doo mën a nekk moteur de développement bi ci des mooy li yentu sa sama iman li duñu yàgg ka naka temps yu abadan wa mal axir ka naka tamudu abdan yonent sallallahu alayhi wasallam moo jàngal na ngeen jëfandiku ci àdduna ba yaakaar na du ngeen dee parce que xéewal yi fi nekk yàlla moo ñu ko jox waaye tamit nangeen jàmm seen borom ba foog ne fi ngeen taxaw ngeen di dee gis nga ne bi boobu kilifa moo ko man kilifa moo ko man defal nit de boo amul kilifa doo ko man kon nag ñu ñu sant si si baax a baax moom ñu fexe ba ñun tabaarakallaa ñu waaw yan na ko yàlla fay waaw bu ko defee daal yaakaar naa euh, li may mujjee mooy dama ko tuddoon démultiplier dans le monde la leçon offerte par Serigne Moustapha Sy xam nga euh, en 1989 ci conférence bi mu ñu defaloon bi ñuy année de la jeunesse mooy conférence d'ouverture de l'année de la jeunesse à Tivaouane te ñu joxoon ko thème ci quel héritage culturel pour une jeunesse responsable mu ñëw ci biir waxtaan mu ne je vous propose quel patrimoine culturel pour une jeunesse responsable parce que héritage looy doon la boo la neexee nga jël ko bu la neexee ko. waaye patrimoine yaa ko moom xam nga année bi 1988 la ñu ko waroon def waaye élection yi kaddu la fa xewoon moo tax ñu dàq ko ba 89 keroog ci biir waxtaanam mu ne maa ngi leen di yéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di laaj ku ma mën a indil benn mustaxsidin bu bokkoon ci violence yi amoon ci élection yi kenn mënu ko indil benn nit bokk ci violence yi xam nga loolu nag bu ko kilifa diine yëpp ci réew mi defoon violence mën a jeex ci senegal ah waaw mënuñu ko waaye boo ko mënu yàlla boole laa ko ko man boo ko iñaane jox ko ko du dëgg ci wàllu contribution yu am solo nga xam ne tamit def naa mottali na waxtaan bi ak aussi ci ay laaj yoo xam ne tamit dina permettre ñu mën a indi ay points yoo xam ne prévoir nañ ko mais temps bi may ñu ñu mën koo mën ko indi donc euh, xam naa ku mel ni Aly Gueye comme ni mu ko expliqué dama comprendre toon bu baax a baax ni mu waxee mais en tout li mu indi ci wàllu article 118 du COCC maanaam code des obligations civiles et commerciales mooy li ma waxoon la responsabilité civile des parents te mooy xale bu defee jëya tant que amul 18 parent parents yi ñoo responsable mën nañ koo ne ba mu fekkee ne dañ ko war a sa euh, euh, alamaan waajur yi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy fay li koy alamaan bu fekkee nag dañ koy tëj tëj bi tamit ñaare comme ni ma expliqué sànq euh, dafay bénéficier ni ñu tuddee de l'excuse de minorité te mooy mooy waral sanction yi nga xam ne moom lañ ko war a teg duñ ko ko teg ndaxte xale la donc loolu tamit dafa nekk loo xam ne lii moo ci privilège yi nga xam ne moom la xale bi am ba tax malheureusement am na ñoo xam ni porte ouverte lañ ko def pour def yenn yi mais coono bi ci waajur yi sonn moo waral ku nekk war na góor góor lu baax a baax a baax ndax yar sa doom parce que lu ci mën a am tamit si yow lay mujj malheureusement nag parents danga da yëg na sax du ñu xam sax li xew parce que léeg-léeg benn xale dañ koy indi moo def lii moo def lii bu pare président laaj sa doom ji dégg nga sa doom ji dem naa man day man day yëguma ci dara kii dafa dëgër bopp ana bàyyam bàyyi ji dem ma nga fa moom daal bàyyi ji moom nee na dafa dëgër bopp moo tax mu nee na mu mënu ci moom dara waaw bàyyi moom la jigéen ñi daal ñoo sonn mais euh, bàyyi moom léeg dañuy gaaw a démissionné trop ci wàllu xale même demande de soins éducatifs yi nga xam ne dañu koy faral def jëm ko ci ay moy pour ñu leen ci wàllu xale yi li ci ëpp waajur yu jigéen ñi ñoo koy def mais waajur góor yi moom tabaraka la ñaare ci wax wàllu xale yu jubadi moom seen taxawaay léeg moom ni war a mel melu ko dara bu ko defee soxna Awa Ndiaye defe naa li mu indi tamit ci wàllu euh, violence responsabilité partagée defe naa sànq loolu indi nañ ko ci wàllu euh, état bi responsabilité bi mu am ci wàllu violence bi nga xam ne moo am xam nga bu ñu seetee lan moo waral violence bi li tax léeg-léeg nit ñi di xale yi di fipp mooy am na léeg lu ñuy tudde injustice social te mooy gis nañ ne réew mi ñiy am dañuy am rek ñiy ñàkk di gën a ñàkk rek loolu nag am na ñoo xam mag ñoo xam mën nañ ko dégg mais pour xale yi ñoom dañ koy wutal dañ koy wutal solution moo tax ma war a sax ne xale moom xale xam nga ci convention relative aux droits des enfants le droit participation boobu moom xale yi dañ koy jëfandikoo baax a baax a baax a ku leen boole ñu bokk ku leen boolewul tamit ñu bokk problème bu am daal ñoom ñu fayal ko à leur manière loolu moo waral agression yeeg. yan yi nga xam ni mooy faral di am ci niñ gisa ne penc mi li fi nekk dañ koo pàccoo loolu moo tax may wax ne état bi loolu dama ko defoon sama conclusion bokk na ci li ma suggéré man maanaam li ñuy tuddee la redistribution des ressources loolu tamit defe naa bokk na ci une politique sociale parce que politique sociale moom moo amul ci réew mi wala boog nekkul politique sociale boo xam ne bi tamit ñi mu touché bëri nañ parce que même boo seetee li bourse familiale bi Macky Sall tëral le président yaakaar naa ne dafa néew na trop néew na trop parce que ay deux cent cinquante mille xaw ma ci ay population bu nekk ne douze millions defe naa loolu tamit ñi ko yëg bëriwul donte am na solo nag kenn du ko xeeb waaye euh, des na parce que boo demee ci banlieue bi ak euh, réew mi ni mel léegi ñàkk gi ni mu méttee xale yi ñoom ala kulli aani bu ñu amee seen soxla il faut ñu faj ko boo leen ko fajee la ñu ko faj boo leen ko faj ñu jéem ko faj moo xam ne façon ba ñu koy fajee te léegi nag li am mooy agressé nit ñi nangu seen alal loolu moo xew léegi ci Ndakaaru agressé nit ñi nangu seen alal mooy système bi ma wax sànq ay bande yi léegi moo am léegi ci réew mi xale yi dañuy nekk bande léegi di agressé façon bu tabaraka la bi ci des mooy jaayum drogue jaayum drogue mi léegi lu lu développé la ci Sénégal te xale yi ñoo koy jaay léegi école yi léegi xale yi yëpp léegi dañuy dañuy dañuy dañuy jël yàmba amul audience buy am tribunal te duñ fa indi xale buy buy jaay yàmba wala buy tux yàmba amul. te ñoom ñëpp koy jaay léegi loolu nag yaakaar naa xeex bi ci état bi dafa am na solo parce que am na jamono bi ko fi benn euh, commissaire de police waxee wax na loo xam ne ca kaw lay jóge ba suuf amoon na coow lu mu juróon mais après nit ñi xam ne dëgg ne réew mi euh, wàllu drogue beeg wàllu blanchiment d' argent blanchiment de mal li ci xew temps yi xam nañ ne kon nekk ñoo xam lu développé ci réew mi la te xale yi ñoom la ñu utiliser parce que kenn du leen ko foogee waaw donc loolu mooy li xam ne moo ci nekk donc état bi am na ci part de responsabilité mais parents yi aussi am nañ seen part de responsabilité waaw xam nga li ma wax sànq ci commencement li sëriñ bi waxoon ci wal baladu tayyib yuxriji nabato bi izni rabbi wallazi xabusa la yuxriji ila nakida kooku ci parents yi la valable ak aussi ci état bi ku nekk niveau ba nga tolloon yaa war a mën a fexe ba njaboot gi baax état bi am na foo xam ne moo moo mën a defar njaboot gi am na foo xam ne famille yi parents yi ñooy jël seen responsabilité am na foo xam ne bi la ñuy conscientiser xam ne moom moo war a jël responsabilité parce que am na foo xam ne fii bu ëllëg parents nag bu ñu fa tolloo ñu ko tal kon bu bëggee tekki moom mooy xam ne fecc tux mandi loolu kenn du defam réew ku bëgg a tekki da koy bàyyi. donc je pense que responsabilité donc c'est partagé il faut que ku nekk ñu xamal la fa la sa responsabilité nekk nga jéem ko taxaw c'est vrai que yombut parce que système éducatif bi et tout lu bëree bëri dafa la nekk parce que échec scolaire yi bëri na ci loo xam ne mooy cause bi échec scolaire yi décrochage scolaire dafa teel léegi xam nga état bi tëral na benn loi boo xam ne xale yi léegi dañuy jàng ba 16 mais est-ce que mooy solution bi xale bi am moyenne zéro moyenne un moyenne ngay di ko bàyyi rek mu jàll ba 16 ans kon kay nañ ko teel a génn école mu dem jàng métier parce que école bi dina école bi dong mais système boobu moo yàq léegi du dégg ñun fee boo demee xale yi nga xam ne dañu leen dàq école dem ñu leen di jéem dugal ci ay sant de formation genre yu di leen di leen jéem a récupérer mais quelquefois dafay xaw a yéex donc loolu tamit lu jar seetal état bi li mu mooy ñëpp jàng mais aussi ku xamul ñu bàyyi ko ci banc bi rek muy te ña fa nekk xamuñ dara kooku tamit teel leen génne ñu jàng leen defe na loolu mooy solution de sagesse <coughs> waaw dinaa suñu wax xam naa ne donc euh, yaakaar naa euh, bi ci des mooy Momar Thioune ah Momar Diop ci violence verbale ndax dina jur délinquant defe na loolu tamit wax nañ ko sànq nga xam moo ci nekk maanaam ñi nga xam ne ñi dañuy waral di utiliser violence verbale forme de de de délinquance la boo xam ne bi ñu koy utiliser li ñu jublu mooy sonal nit ki bu ndaxaral nit ki am luñ ko euh, naxarale loolu defe naa ne kooku tamit jot nañ ci jot nañ ci wax théorie Lombroso bi defe naa loolu duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci dellusiwaat naa de liaison bi muy def ci diggante euh, euh, kii sëy ak jour yi ñu terewoon ñi di ko sëy defe naa yooyu du yemul sax tabaski mais def naa dañu wax ne jour boo xam ne bi dañuy rey deret bu mel ni jour tam xarit wala en tout cas jour yi nga xam ne dañ ci faral di rey euh, tour deret yooyu defe naa la kilifa yi wax ne ku nit buy sëy na moytu bés yu mel noonu parce que mën na jur doomam mu nekk xam ne ëllëg dafay dafay violent donc loolu tamit bu la neexee mën nañ def liaison boobu parce que l'ombroso moom moom ci ay étude ay crâne ay crâne criminel moom la def ba gis ne euh, am na ñoo xam ne ñi ay relents criminel moo nekk si ñoom te loolu dafa ne loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu juddaale la donc mondialisation mbon mbon defe loolu moom dafa nekk yoo xam ne lii mooy li nekk mais yooyu yëpp muy ngi a éducation bi rek parce que télé bi ak internet bi li muy génne yaakaar naa loolu bu fekkee xale bu ñu yar mën na cee bañ a yàqu parce que internet xam nga fan laa ko doon dégloo démb int bëri nañ avantage trop parce que xale bu bëgg a jàng tey soo demee internet loo bëgg xam-xam ko mais internet aussi neen mën na cee yàqu mais ku ñu yarul. naa ne sëriñ bi wax ne plume dañ koy yar. mais instrument bu mu mën a doon ci développement dañ koy yar bu borom ko koy utiliser bu yaruwul rek couleur ko ci loolu je crois que loolu mooy li nga yi moo ci nekk dama doon profité pour indi jeu vidéo yi normal kii gëstu bi ñu ci defoon sax moom laa affiché wu ne bëggoon ko lire mais soxla si ne ma temps dafa xaw xat mais jeu vidéo du yëpp a négatif jeu vidéo yi am na yu baax ñoom def nañ ba étude ba def étude ci temps bi ngay temps bi ngay def ci toog di seetaan jeu vidéo ñoom dañoo gis ne am na xale yoo xam ne gis nañu xale yoo xam ne duñu seetaan un jeu vidéo seen intelligence développé wu xale yi seetaan jeu vidéo ñoom la seen intelligence gën a développé alors que jeu yi mën nañ ca yàqoo kon pour wax la ne la lu ci nekk rek usage bañ cay def mooy li xam ne moo am solo am na njariñ trop mais aussi am na yàqu parce que am na yoo xam ne jeu vidéo yi la ñuy seetaan fa la ñuy jógee def li ñuy def fa la koy jàngee. donc donc tout est je crois que tout est une problème problème de de de d'éducation donc tamit dafa naa li ma ci euh, li ma ci waxoon bon soxna si moom dafa def parallélisme ndax xale bi nga xam ne ñaaree ci commencement am lay wane ne dafa bëgg affaire alalu yaayam wala kenn du ko laal bon c'est vrai que xale bi comme ni ma ko expliqué sànq xam nga malasement temps bi permettre peut-être beneen yoon dañ ci mën a ñëwaat mais li ko dalee deux ans ba trois ans. ba baa ngay egg 18 ans at bu ci nekk dafa am ay réaction yoo xam ni yi moo tolloog âge xale bi donc moo tax ñu ni jàng psychologie de l'enfance c'est extrêmement important surtout les différents stades yi nga xam ne ku mel ni Henri Wallon moo la indi wala même les différents l'intelligence bi Piaget indi yooyu dafa jar a jàng ku yore doom rek wala ku nekk ci école yi war nga jàng yooyu parce que étape bu nekk dafa am réaction yoo xam ne âge bi moo koy bu ci jógee rek mën na changer bu jógee ci âge boobu rek beneen comportement lay amat événement dina ñoom amoon beneen comportement bokkute ba mu amoon ba amee 5 donc moo tax loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu jar lu jaar jar duñ ci mën a sukkandiku ne xale bi ni mel nii noonu lay kunne mel non non non ça rek ci âge bi nga xam ne bi si la si la toll donc euh, bul nampal soo meree defe naa loolu tamit jàngal nañu ko nit ki bu meree mais Serigne Moussa jàngal nañu lépp ah hmm? nañu lépp même booy togg hmm? xam nga dem na ba jàngal nañu ne même Euh, euh, lekk bi ngay mujj jox sa borom kër avant ngay sëy ak moom day am jeexital ci sëy bi day am jeexital ci njaboot ko say juddoo loolu sëriñ bi jàngal nañu ko lu dëgg kon kay sëriñ bi jàngal nañu lépp nañ dellu ci kaset yi lu dëgg man daal loolu laa ci xam mouvement yi ndax mouvement yi exerce violence xam nga exemple Honduras dafa nekk exemple bu am solo boo xam ne malheureusement temps bi may ñu ko mais foofu dañu fa tudd ñaari mouvement bu ñuy wax M13 ak M18 mais ñoom seen biir dañuy rayante par rivalité euh, mouvement yooyu dañuy exercer benn intimidation ci gouvernement bi bay enlever ay autorités pour mën a fexe ñu bàyyi leen xel seen yeneen mouvement yi ñu gis nañ ñoom ñi dañ leen maanaam seen yeneen gang parce que ay gang la ñu ñu tuddee les mara foofu ak M13 ak M18 ay ay ay gang la yoo xam ni ñoom seen bopp dafa am benn te dara waralu ko lu may li ma wax sànq pauvreté bu metti ak seen famille yu am crise abandonné leen xale yi dem wuti fu ñu nekk parce que xale fu mu jaar wut fu mu nekk ak ñu mu ànd ak fexeel ba muy toog ci famille bi mooy li ma waxoon sànq ci wàllu euh, euh, attachement investissement engagement yooyu na ko xale bi am ci kër gi xale bi na attaché wu ci famille bi di investir ci cause kër gi engagé wu ci cause kër gi su ko mënta am ci kër gi wut benn band boo xam ne loolu fa la koy defee amul benn problème xale moom fu mu jaar moo tax kër gi xale bi bàyyil bu ñëwee nga di ko gëdd même boo amee résultat yi bon waaye gëdd saaga xas kersa gu métti du toog ci kër gi am na xale yi bu ñu tegee seen sac bu ñu teg seen sac génn dem seen yoon bu ñu demee te seen mbedd nag mujj gi mbedd mooy mooy ëpp ci ñoom influence yow mi wajuram moo tax loolu c'est extrêmement important il faut ñu bàyyi xel xale yi ni ñu waxanteeg ñoom fam façon bu ñu waxanteeg xale fam façon bu ñu defanteeg moom waaye boo na wayjur parce que ni ko mbokk yi wax sànq Khalifa Sall doom nawle la mais am ñu xamuñu loolu seen doom dañuy gëdd dañuy saaga dañuy xas dañuy yuuxu ah tabarakallah vraiment du noonu kooku boo yoree sa doom dalay échappé nga ñàkk ko ne ah xale bi dañ ko léeg-léeg nga meer ñëw sama doom bi de man xam naa dañ koo liggéey kii ni mel moom fu nekk dem naa fu sëy ma ne dara benn sëriñ jàpp ko yaa yaa ko mënta weer donc wax jëpp loolu la moo tax la lu nekk ngay gis ci réew mi ci ñoo xam ne ñu yar seen doom parce que éducation dañ koy jàng li mbokk mi wax sànq su may wax jàng waxuma mu français kese sëñ Moussa moo ñu wax ne doom dañ koy yar ñeent fukki at bala muy juddu ah ñeent fukki at ci kan lay dellu ci ay waajuram waajuram ñoo yar seen bopp jàngal seen bopp ba xam ne ñu war a yore seen kër ñu war a yore seen doom donc fa lay dellu su ma waxee éducation waxu njàng parce que am na ko jàng tey ba ak ba am agrégation te xamu dara hmm? kon njàng du problème mu dem école français yi du dégg la am na ko xam jàng na te xamu dara mënut a yore kër bi am na ñoo xam jàng te mënuñu yore kër ah wuti ay jànq yu leen yore seen doom yeeg wuti ay nuunoo yi kenn xamul parce que mënuñu yore seen doom yi donc loolu problème du problème mu njàng problème mu éducation la boo xam ne da koy def ci xale bi yeewu googu culture générale bi ma wax sànq ci njaboot ci wayjur bu nekk loolu laay wax jàng donc euh, euh, bon yooyu daal defe naa ne mooy ci amoon yi ci ma yi ma jàppoon ci wàllu inter euh, contre délinquance contagieuse defe naa am na benn soxna ko fex mm. délinquance contagieuse mooy li ñu waxoon ci ci les influences xam nga indi naa ko mooy li waxoon ci les influences xale bi bu nekkee ci benn milieu te amul résilience mënta résister ci ay moromam li ñu koy defloo lu gars yi def mu def te du xam sax tam def ko peut-être loolu la ñu tuddee délinquance contagieuse hmm? loolu nag ça dépend souvent ci âge bi parce que am na âge boo xam ne bu ci xale bi tolloo facilement lu ñu ko def la mu def ko mais am na âge boo xam ne bu ñu tolloo quand même dina am benn maturité ba nga xam ne bii yenn yi bu ñëwee tamit dina am recul mais sut nag bu ñu ko préparé xamal ko na ko kat lii bu see morom bi dugg ci dugg yooyu tamit mooy def ci wàllu bi. du dëgg bu ko defee daal euh, hmm? waaw am na benn question bi fi ñëw ba di nag ñëwul kii daan day laaj ne ci exposé bi da nga wax ne nañ nañ euh, maanaam mbokk sang yi nañuy faral di takk une femme instruite mu ne bu vous être beaucoup si ce que vous entendez dans instruire. Nos mamans n'ont pas été à l'école, pourtant elles ne, nous, elles ne sont pas violentes. waaw tontu naa ci xam naa ndax day wut borom day wut borom kër ndax waa jooju soxna soosu <laughs> man kay tontu na mooy li ma tontu léegi rek mooy li ma tontu léegi def naa moom laa tontu woon te liiru ma kii bi sax fàttali naa ko kii bi mooy li ma tontu léegi rek ci wàllu éducation bi du njàngum njàngum. njàngum njàngum njàngum njàngum tubaab kese kese mais euh, choix des parents yu dëppoo mooy li xalifa doon wax si dafa naa yooyu tamit nekk ni lu am solo xam nga mag ñi rek ñoo mën a tànn mag ñi lañ leen bàyyi ñu tànnal ñu boo gisee bu njëkk boo masaan bëgg soxna ngay def ba léegi sax gaa yaa ngi koy def ku bëgg soxna da ngay def euh, da ngay def listixaar da ngay def listixaar seet ba xam dëppoo ngeen wala déet yow safara nga moom ndox la wala ngelaw la wala ah yooyu dañ koy set c'est important parce que safara ak safara mënuñoo dëkk waaw safara ak safara mënuñoo dëkk mooy xuloo bu jeex rek su ko joxee ñu atte loolu nag stabilité de jox donc moo tax je pense que loolu mag ñi fi lañ ko fekkoon daf naa ne tamit lu am solo la kon ñun aussi ku ci soxna tamit na nga utiliser loolu ku ci wut borom kër aussi na nga utiliser loolu yaakaar naa affaire bi ni ñu koy composé ñëpp xam nañ ko waaw boo jëlee tur yi def araf yi tabaaraka <laughs> bu dee loolu la ñu am lu ñu joxe ngeen bal ñu wax salaamaaleykum wa kon su ko defee ñu ngi jaajëfal suñu mbokk maam Cheikh Ahmed Tidiane Mbengue yaakaar naa ñëpp bëgg nañ ci waxtaan bi xam naa bala ñoo tëj rek ramasser li ci des ñu jox kàddu gi suñu maam Abdou Aziz Sy. itam ñu bëgg jël lépp jox ko ne jeunesse ñooy def ñooy ñooy def dégâts yeeg yooyu yëpp te itam. ñu ngi ci parent yi parents yi itam tey tey jii comme ça par exemple benn xale ñëw nga guddi mu moom papa ji ak yaay ji nekk ci biir di wax mu taxaw ci bunt bi di déglu wala papa yeeg yaay ñuy saagante parce que dama seetaan benn jour benn euh, kii sketch muy clando xale bi ànd ak papa ji papa ji di xeer mu ne ko papa pourtant yaa ma tere woon saaga te yaa ngi saaga te itam jeune yenn jeunes itam dañuy teel a laaj seen droit te balaa nga laaj sa droit war nga def sa devoir ba pare tey jii par exemple maam démb suñu yaay ki ne bërki démb xaw ma bërki démb mi ngi ñuy yedd ne jeune de fora lii te te damay naan itam fekkee nation mooy jëmm mën nañu mën naa wax ni jeunesse itam mooy ruuxu jëm mooy mooy ruuxu jëm jëmm jooju mooy ruuxu jëm jooju su ko defee itam ñu gën a dénk jeunes yi parce que ñun ay dañuy naan doomu kilifa lañu tey jii man doomu pap kii la kii doom kii la kii kii la mais bu ñu jël yëpp itam ne sëriñ si mooy ñooy suñu sëriñ lu ñu wax baax na lu ñu wax mais itam nañu fexe ba suñu mbokk comme ça tey jii suñu sufaat